métti na torop surtout ren jii ren jii xont bi seer na li dalee ci ripaas koraay euh, rakal moom mënoo koo gis fenn ak son de blé seer na trop naa mën naa ne son de blé moo xaw a tane naa mënu li ñu bëgg quoi. mais état bi nee na am na benn subvention bu mu def pour euh, njëgu dund xar yomb. Euh, loolu noonu ñu ngi koy dégg rek parce que ci dégg-dégg lañ ci am naa egg si ci ñun. parce que ba léegi koraay mu ngi seer saako bi mu ngi seize mille cinq cent. kon ba léegi mën nañoo wax ne affaire bi egg ci ñun ripaas bi mu ngi seer ba léegi parce que saako bu dee jarga bu ñuy yafale boobu mu ngi jar treize mille ba léegi kon egg ci ñun mën naa nekk nag na egg ci ñun saako ngooñ mu ngi sept mille fu mu nekk nii waaw kon xam nga ne xar seer na trop trop trop trop trop te da ngay gis yow nga jënd sa xar tey nga jënd ko quatre vingt mille mu doon xale bu ndaw euh, ak li ngay financé ci moom nga jënd saako Euh, nu mu tuddati ripa jarga treize mille saaku courage seize mille cinq cent son de blé euh, huit mille cinq cent rakal moom mënoo koo gis loolu noonu nga bëgg koo finance ci xar bi il faut xar seer li moo waral affaire bi métti na te ñun bi ñu ñëwee fii ba léegi nelawuñu ñooñu ci xar yi ñooy topp nelawule maanaam da ngeen di veiller di surveiller xar yi voilà ñooy surveiller xar yi parce que boo ko defut sa mën naa dem yow nga koy wër ba léegi nii am na kuy wër xaram fii nii te mënagu koo gis te xam nga loolu noonu yëpp ci pertement la bokk soxla woon nañu robina robinet bi barke dem lay doog a ñëw kon affaire bi ba léegi mu ngi des waa. lumière bi nag euh, lamp yi. lumière bi ba léegi am na làmp yoo xamante ne monté ko waa barke dëmb kese la ñu doog a monté yeneen yeneen yi na am na yeneen yoo xamante ne monté ko ba léegi. waaw léegi est-ce que client yi ñu ngi ñëw. client yi léegi instant yii ni ñu ko daan gisee daaw daal ak ren ji par rapport waaw. waaw léegi léegi par rapport ak ren lan moo tax lan moo ci pour yow lan moo war a client yi. dañoo yaakaar ne xëy na manifestation bi moo tax wala gars yi dañoo dem feneen jënd faxar wala leneen. mais yéen aussi yéex ngeen a ñëw. ñun en tout cas am na ñu teel a ñëw parce que bu muy des 15 jours am na ñu ñëw man mii ci laa bokk waaw loolu daal. bokk na ci loo xamante man ñun ñu ngi koy jooytu quoi. léegi njëgu xar yi njëgu xar ci ci lu mu tollu njegu xar yi waaw instant nii pour le moment bu dee bi gën a ndaw cent cinquante mille am na waaw bu dee xar bu mag a mag boo xamante ne tey nga ko deux ans euh, mën naa jël trois cent mille ndax li ngay financé ci moom waaw loolu daal am na ci. waaw mais est-ce après loolu yëpp yéen a gën ci génn. waaw loolu ñun mënuñ cee génn parce que boo calculé li nga def ci moom yëpp mënoo cee génn da nga cee mën a mos nii rek tuuti tuuti naa mënoo cee génn. waa loolu daal am na ci. léegi yéen ngeen jóge dëkk ba ba fa njaboot gi ñëw fi Ndakaaru pour liggéey si yëf fi yombul de. waa gis nga ñun ñooy joge dëkk ba moom ñëw fii pour jaay daan suñu doole to xam nga rek ci éleveur bi lañ ko mën a defee quoi waaw parce que mooy suñu yaakaar te moom la ñu mën itam te ñoo ci lu mu métti métti dañ ciy nekk duñ ko bàyyi kon état bi war naa war nañoo gëstu bu baax a baax yombal affaire bi bu ko defee daal dina baax incha allah. waaw euh, sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñoo ngi delloo ziar. Euh, ñu gis la léegi ngay wax waxaale ci xar yi ñu bëggoon a xam euh, njëgu xar yi fu mu toll ndax poche yi attan nañ ko ak yéen jafe-jafe ngeen am. waaw ñoo ngi sant yàlla di ñaan yàlla bi ñu ko fekkee ba at mi delsi ba ñu toll ci fii nga xam ni jub nañ ko yàlla nañu yàlla may ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin maa ngi tudd Moustapha mbay maa ngi dëkk fi HLM 4 damaa julli jumaa ba ci ba pare ma ni ñaan naa ñëw xool si xar yi fu fuñ toll. parce que jëndaguma xar nag te bëgg naa ñaari xar waaw bi ma waxtaaneek moom wax na ma prix fay naa ko prix mun ma raw naa la ma ne ko ñaari xar laa bëgg mun waaw raw naa la il faut nga yéeg man it ma jéem a wàcc ma ne ko man de boo woon boo nangoon li ma la wax daal dana ma gënal mais nag prix yi xaw naa yëkkatiku par rapport ak euh, li fi amoon daaw mais nag yi ngay tànn la des fois da ngay tànn yoo xam ni. mais pourquoi euh, maanaam euh, xar yi. mu am yenn prix yu xaw a jéggi dayoo laa ko mën a waxee. waaw xam nga bu nee jéggi na dayoo am na ñu ko fi jënd ci suba dem am ñu ko fi jënd démb démb dem parce que dañ naan euh, à chaque sa bourse ku ci ne seetal fa nga la nga am la mën a ne ak ak la nga ko mën a amee nga waxaale bu day noonu. la euh, la ne sa poche nga waxaale bu mel noonu parce que nous sommes tous des musulmans moo tax ñu bëgg xaru tabaski. mais fekk ko rek doy na fekk ko te tal ko ak seen njaboot doy na lu ci lu ci yokk nag pour man daal bénéfice la man daal maa ngi waxaale amaguma mais yaakaar naa dana am moom waaw te yàlla ñëpp am daal yàlla na yomb ñëpp am ñëpp am waaw bu ko defee yàlla def fi jàmm def ci réew mi jàmm euh, des na daal ay fan waaye yàlla na yàlla yombal lépp lépp lépp lépp. waaw sëñ bi seetlu woon ni euh, maanaam jaay ko xar yi dañ naan gën a teel a ñëw que ren. waa xam nga li ñëpp di wax rek. te ngeen ñu ko gën koo xam yéen ñi taskato xibaar li ñu naan euh, li fi xewoon fan yële passé moo ragal loo ñu bëri. wala manifestation yi. waaw ak tëkku yi nu dégg ni euh, parce que téeméeri xar ñetti nit bëgg koo garde kooku bu sécurité tellement amul day metti parce que doo jël un naa jël li nga am ak. sab déem ak sab daxaar dajale ko jënd sa téeméeri xar ñëw indi ko ci capital pour jaay ko leneen di la ci fekk kon looy dundewaat bu at mi passé day metti ñoom loolu moo leen xaw a ragal loo tuuti mais yàlla mën na def fekki fan euh, xel mën naa ubbiku xel dal sécurité am ñoom ñu dugg seeg seen i xar waaw loolu daal la ñaan bu ko defee nañ ko daan defee daal ku ne yàlla yombalal la loo tabaskee te mu jugle di muur ak sa njaboot. nga xamante ni tey dafa jënd xaram am lu mu demee ko jënd c' est à bas âge la ko jënd di ko élever ak lu mu ci daj lépp épreuve bi nga xam dund na ko moom lépp ba yegg si fii nii tey exactement tey du du jël du jël produit bu toll noonu malgré dépense yu mu ci def yëpp di ko vendre par terre loolu day nekk loo xamante ne xel du ko nangu yéen tamit exactement ñu am lu leen sedd am loo xam ne ñu koy sedd mais xar mii nii tey koy tey koo gis nii ak ni mu toll nii am ni boo ci fay 200000 wax dëgg si yàlla loolu kenn du la ko xeebal mais nag xar mi dafa fekk ni maanaam ñi la fi jiitu dañ cee fay loo xam dañ la raw dañ la raw 1000 fois sax lu bëree bëree bëree bëree bëri mais n'empêche que boo wëree ci marché bi di nga gis koo xam dina la mën a jaay xaram 200000 mais xar mi moom du xarum 200000. maanaam euh, njëgu xar yi dafay dépendre ci ci yar gi. exactement vous avez bien répondu exactement dépendre yar gi surtout ci denrée alimentaire bi nga xamante ne c'est destiné à la bétail repas bi seer na. tey ngooñ bi seer na n'est-ce pas. quoi mu toll. lan ci. supposons jarga bi tey dem na am na sax ñu koy jaaye ba euh, euh, ay mille mu nekk lu très élevé. saako ngooñ dana ba ay ba ay 7000 8 7500 ay 8000 ñu nu koy jaayee loolu lépp tey nga ñëw tey. non kooraay bi mu ngi ci ay du ay mu am ñu ko jaay 17 17 500 voire même voire même 18 000 sax daf ciy àgg loolu lépp nag tey kon boo ko boolee tey nga investir ci xar mi depuis des mois et mois de façon répétitive exactement tey tey nga bëgg a ñëw jaaye xar mi def ko vente par terre loolu ça serait contradictoire ñun dañuy bëgg a jaay parce que képp koo xamante jël na sa xar nga yar ko nekk ba contexte bu mel nii nga exposé ko ci marché bi sa sa mooy nga jaay ko mais nag mu nekk mé boo ko jaay tamit mu nekk maanaam loo xamante ni jaay ko prix boo xamante ni lu abordable lay nekk mais doo ci gaañu tamit te doo ci client bi voilà. waaw sëñ bi ñëw fii ci euh, géttu HLM bi ñu fekk la fii ngay waxaale xar. waaw waaw euh, fu xar yi xar yi waaw fi mu ne nii xar nag am problème bi ñu jot am mooy xar dafa xaw a manqué nii ndax instant yi boobu ba tey affaire élection yi ni ñu doon doon dégg manifestation yi waroon am le cinq donc moo tax finalement booy xool xar yi bëri dugg seeguñu Dakar te actuellement yi nekk nii si biir dëkk bi nii cher na. cher na mooy maanaam fi ñu toll fi njëg gi toll. njëg tey dangay xool bu ndaw bii rek maa ngi dégg ñu ngi wax cent trente cent quarante mille donc xar boo xamante ni yow yaa ngi ko daan jëndee. waa trente mille wala quarante mille léegi ñu dem balay laaj ay cent trente moo lay wane ne kon manquant am na. donc te tamit si manquant bi tamit des fois manifestation yi téye na nit ñi ñoom boo xamante ni tey. wàllum xaalis bi mu waroon circuler normal si tabaski bi circuler wul. maanaam sénégalais dañoo tiit nekk ci njaqare. ñëpp fi ne nii ñëpp a nekk point mort képp kuy sénégalais na nekkoo point mort rek daa fekk doo citoyen parce que tey affaire manifestation dafa yóbbu dëkk bi ñëpp xaalis bi waroon génn circuler sax génnatul normal tey koo waroon fëgg pour mu yëkkati jox ñu daan fëgg seen nit ñi di leen jox dërëm sax munu instant yi mënatuñu fëgg kenn ndax dëkk bu dëgër donc. maanaam ko woo téléphone sax dala dala wuyu. moom kenn jëlatul xanaa ñu gis appelu déwénati fekkee déwén la gars yi di jël mais pour woo nit mun na xam ne ne yow mii nitu daawam nga dala daan jox woowu la boo ko woowee du la jël léegi kay xanaa leen message déwénati fekkee déwén baal ñu àq yooyu la gars yi léegi xar cher na aussi xar manqué na kenn gisatu ko léegi li ciy pexe ah pexe mooy gars yi ñu jéem a xool xam nga état am na loo xam te ni tey moom moo waroon jël ay responsabilités dimbali néew di doole yi parce que pël yi coggal gi am na ñoo xam te ni bëgg nañ mais booy xool coogal gi bu duggagul moom mënuñu jën te si loolu la ñu mës a tàmm di jëlee néew doole gi am na ñoo xam ne mun nañ ko takkaleel seen bopp mais am na ñoo xam te ni bu coogal gi ñëwul mënuñu tabaski ñooñu tamit il faut que état di mel noonu di mel noonu mu leen di sóor comme dëkk bu mu mel noonu moom mu jël ay responsabilités dem jëlee leen boppam ay xaram andi te wut sax ay nit ñoo xam ne ñoo ko jaayal mu xam ne ñii pour social bi la mais tey da ngay xool borom doole yi seen biir ñi ngi dimbalante ñoo ngi ñëw si xaru un million yi deux millions yi da ñëw benn kilifa bu ñëw fekk la fii plus de cinq kilifa mais mu leer na ne moom jën benn la jëndal boppam mais jëndal na beneen copain boo xamante ni tey am na mën na jëndal boppam xaru million mais xoolu ñi nga xamante ni tey dëkk fu mu toll nii dañu am problème mu xar. maanaam borom alal ñoom seen biir ñooy dimbalante mais bàyyiwuñu xel ñu néew doole yi. ne nii déggool ma wax tey bu doon élection yi bu sampoon léegi ñu ñëw na la yow lañ fi nekkal bu élection yi passé tabaski bi jot gis nga gisoo benn homme de politique boo xam ne ñëw na na xaaral. néew di doole ñi ma doon topp ak di jàppale muy commencé ba si Sonko ak Macky ñoom ñëpp paree nit ñi dañuy ñëw ba si am ay ñoo xam ne ay moor yoo xam ne perte nañ seen kenn si yu mel nii mais tey bu tabaski jotee ku su nekk dem nga tëdd sa kër jaaxa sa jabar sa famille jabar léegi ñun toujours moom laa yar Sénégal ñun toujours ñu ñooy perdants il faut que ñu changer benn stratégie boo xamante ni ñu jéem a dimbali sénégalais yi si benn côté quoi. jërëjëf sëñ ok jërëjëf merci. c'est bon voilà euh, ñu ngi fii tujur ci dara euh, daralu HLM bi ñu fekk fii euh, Vieux mbay mu ñuy wax xar yi naka la koy toppatoo ay xar yu mag la ñu fekk nag ay xar yoo xam ne xar xar yu kilifa yi la comme ni ñu koy waxee ñu wax la xar yi ku leen gis xam ni xont mi baax na mais est-ce que njëg gi njëgu xont bi est-ce que yéen a ngi ci gis seen bopp. waaw xaaj waa Sénégal ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen dalal ak jàmm. waaw bu dee bu dee dañu toon topp ci xont gi du nu jaay xar yi quoi ndax xont gi moom vraiment cher na cher na trop trop trop trop parce que saako boo xamante ne yaa ngi ko doon jëndee ay 7000 9000 dix mille léegi yaa ngi koy jëndee ba ay quinze mille cinq cent onze mille cinq cent mooy. mais euh, état bi wala boog barki démb premier ministre. nee na euh, premier ministre ministre de l' élevage. Mhm. nee na am état bi am na ay subvention yu mu def ci ci ci xont bi. Mhm. ndax loolu yéen gis ngeen ko wala yéen euh, gis ngeen gis ngeen subvention bi daal. non xaalis ñun vraiment ñun gisuñu subvention bi quoi dégg nañ ko nag mais gisuñu ko parce que même ndox sax pour ñu am ko problème la dañuy jënd ndox chaque jour. xont bi dañuy jënd ba dee dañ ne woon ñu dañu jaayee saaku ripaas yi cinq mille deux cent ba cinq mille cinq cent mais gisuñu ko te ñun ça fait dix ans ñu koy ñu ñu ngi lal ñu koy jëndee cinq cent donc cinq mille deux cent koy jëndee boobu mooy xont bi nga xam presque cent pour cent li euh, cent pour cent la Mali bi ñu koy jëndee seize mille euh, soin de bi ñu ngi koy jëndee onze mille kon affaire yi dafa cher quoi te bon ñun li ñu takk ci ay xar rek ëpp na cent xar dañuy lekk ñaari saako par jour ngooñ bi nga xamante ne ñoo ko moom sax dafa cher six mille cinq cent lay jar gis nga luzerne bi ma jënd cinquante cinq mille laa ko jëndee pour rek bañ a joxati xar yi ngooñ parce que bu dee da ngay joxe ñaari saaku ngooñ par jour xar yi treize mille francs nañ ko lekk te ripaas bi gul moo tax ñu naan xar yi dafa cher mais c'est normal xaru yar moom ku ko yar mënatoo jot li nga ci mais il faut mu cher parce que njëg gi moo demee noonu ko waaw. xar yi léegi euh, xar yi njëg gi fi muy toll. ñun moom li ëpp li ñuy yor laa dum la ak tubaabeer ñun ay xaru Sénégal la ñu yor xar yi yëpp xaru yar la te xar yëpp fi lañ leen yaree nag dañuy Tiwaawan lañ ko yaree bergerie Dabaax gis nga bergerie baa ngi nii ñun Tiwaawan la ñuy yaree ñëw en face Masalikul Jinaan di jaay Grand Dakar la ñu nekkoon dem Rue 10 pavage bi ak berte bi moo tax ñu ñëw fii depuis deux ans mais gis nga amatuñu sax espace fii dañ fi xaj-xajal rek pour dugg fi kon wan la ne ñun bëgg nañ liggéey nit ñu ñu jël ñuy liggéey rek vingt personnes la ñu am na ñoo xamante ne le matin la ñuy liggéey am na loo xamante ne la la ñuy liggéey voilà vraiment loolu moom métti na lool parce que booy yëpp dañuy bëgg am dara nga bëgg ci génne xont bi bëgg jaay xar yi il faut xar yi cher. xar yor ma mënatul yomb sangum xar yi euh, defar lekk ñoom ñooy takk ñooy defal xont bi gis nga xont yaa ngi nii gis nga ñeenti paan la ñu xool xam nga ñeenti paan yële boo ko gisee di nga xam ne lii saaku la léegi xar yi am na ñoo xamante ne ñooy jaxaleek am na ñoo xamante ne ñooy garde am na ñoo xamante ne it vraiment am na ñoo xamante ne ñooy joxe lekk am na ñoo xamante ne ñooy garder am na ñoo xamante ne it ñooy sang booy nag moom booy Dakar moom dangay ngay waaru xar téeméer lañ koy sangee waaw da ngay wax ba dee mais xar téeméer léeg-léeg na ngay xëy sang vingt xar rek ne leen booy bàyyil ba demee nga sang yenn yi dem ndax ndox mi dañ koy jënd bërigo yi ñu ngi koy jëndee mille cinq cent waaw en tout cas daal état bi moom bu ñu jàppale woon ci ndox jàppale ñu ci aliment dinañ ci gën a gis suñu bopp. léegi bu dee côté sécurité pour surveiller xar yi. waaw côté it ñu ngi koy waajal bu baax a baax parce que vraiment sa alal moom du kenn du la ko gën a bëgg. no non je veux dire que sécurité mooy est-ce que les forces de l'ordre et de sécurité ñu ngi ñu ngi fii. waaw effectivement force de l'ordre bi chaque jour autopolice dinañ fi jaar di ñu laaj ndax ñu ngi si jàmm ñu ne leen ñu ngi si jàmm. commissaire bi sax jaaroon na fi jël suñu numéro pour en cas bu ñu amee problème ñu woo ko mais ñu ngi sant yàlla yooyu yëpp yàlla dimbali nañu ba dara amagu ci quoi foofu moom état bi moom vraiment gis nañ ne ñu ngi ñuy sécuriser bu baax a baax. waaw léegi ñëw un peu ci euh, ci prix prix yi comme ay xar yu mag la ñu bëgg xam njëg yi euh, bi gën a ndaw fu mu fu mu toll bu ma gën a mag aussi fu mu tool waaw gis nga xar yi moom bi gën a ndaw mooy bii maa ngi ko jaayee cent vingt mille. waaw bii moor xar bi ganoon ndaw jaaye naa ko cent vingt mille jar na waaw jar na waaw moo xar yu ndaw yi ñoom ñoo njëkk jar boo xaru cent cinquante mille yi jar na léegi xar yi fi des nag moom da ngay dem deux cent mille ba ay huit cent mille un million waaw ku nekk daal sa xar a ngi fi daal waaw lu sa postol boo ñëwee fekk fi boo lu sa postol daal boo ñëwee di nga fekk xar mais nag li may bañ mooy gars yi nag nañu gaaw jënd xar yi xar yaa ngi jeex de parce que ñu fi ñu toll nii xar yi gis nga boo laay re gars yi marqué nañ ko mii gis nga loo gis giri rek mooy marqué nañ ko waaw dañuy defe ne xar yaa ngi fi alool que xar yi ñu ngi sant yàlla ñu ngi leen di jaay bu baax baax la soxna si ñu ngi fi la fekk fii euh, ci HLM euh, fekk la ngay waxaale xar yi euh, fi njëg yi toll waa njëg yi de moom xar yi moom <laughs> macha allah seer na seeru loolu lañ mën a wax waa fi mu toll nii parce que cher na te dëkk bi amul xaalis en plus mm-hmm. borom kër yi nga xam te ni benn xar da leen di war muy borom kër gi ku góor ki laa bëgg a wax ndax yéen jigéen ñi na nga dawal yërmande ci ñoom ah bu baax a baax parce que ñun moo wax dëgg yàlla eh, liggéey rek a ñu war parce que suñu borom kër yi ay jàmbaar lañ te ñun tamit jigéen ñi xëy na wërsëg bi ñu yàlla xéewale tamit gën na foor ñoom benn côté booy xool parce que tamit jigéen ñun ay femme battante la dañuy liggéey macha allah kon dañuy jàppale suñu borom kër yi dinañ comprendre bu baax. am na nag ñu siy comprendre am na ñoo xamante ne tamit ah man de wax dëgg yàlla damay comprendre lu ma sama borom kër indi lu ma ci mën a dolli ma dolli ci mu gën a yaatu. dafa am ñoo xam ne nii dañuy dañuy dañuy ñaxtu ci euh, xar bi la seen mburum kër di di indil yow loo leen di yedde non man moom loolu moom tout saf saa wax ñi koy def loo leen di yedde li ma leen di yeddee mooy nañu muñ lu ñu leen indi rek ñu xam ne tey seen doole borom kër fii la toll parce que jamono ji moo toll foofu te kanam la jëm wax dëgg yàlla li ñuy gis nii kanam la jëm vraiment kon jigéen bu ci ne rek war nga mën a dimbali sa borom kër nga jàppale ko lu mu la indil tam nga xam ni suturaal ko xam ni sa bopp ak sa njaboot ngay suturaal waaw vraiment loolu moom borom kër bu ko dégg xelam dina dal macha allah waa loolu moom man yaakaar na parce que ah man de noonu lay dundee moo tax vraiment man moom dërëm ñaat dërëm xeebu ma sama borom kër lu mu indi dama ciy bég parce que xaw ma nu mu dafa rayante ji ba indi ko kon du ma ko ko xeebal wax dëgg yàlla parce que yow mënoo toog sa borom kër daw indi la bu dee ñaar dërëm dërëm sax bul ko ko xeebal rëyal ko yamal ak borom million bi yéen a yam vraiment maanaam jigéen dafa war a doylu ci li borom këram am. bu baax macha allah dafa war a doylu ci li borom këram am man de xaw ma keneen mais man damaa doylu li sama borom këram au contraire lu ma am tam damay indi ñi dolli ndax kër ñaara ko yoon ndax réew mi moo toll foofu macha allah.